wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu bokk jàng fatiha juróom ñetti suratu quraysh bokk jàng fatiha juróom-ñetti suuratu quraysh falaxi ak naas salaatul fatih ñu tàmbalee ko jotaay bi incha allah bismillah mu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen ziar di leen baalu di leen balaax di leen ndokkeel ci bés bi ak ci guddi gi kàddu yi sax de ëpp naa guddal ndax dañ nekk ci bërëb boo xam ni benn baat rek a fi war a jib te baat boobu moom xol yi moom xel yi te loolu yëpp lew kon nag si rekk lañuy wax ñun ñi fi teew sant yàlla daf ñu war ndax bu yàlla defoon temps bi di dellu gannaaw ñun ñi la tànnoon démb li wér te wóor suñu choix du soppeeku ndax si liggéey nga si ñun loo xam ni ku ñu doon tey bu ñu xëyee ëllëg gën kañ a nekkoon kon nag si yaakaar naa ni loolu rekk sax bu fekkoon fa la mbir yi yem ñu war a sant yàlla si sant la kon nag ñu yemale foofu kàddu gi xanaa di ñaan rekk ñu teewlu te déglu dégloo xel yëgee xol te fexe ba jëriñoo kàddu yi fi wàcce incha allah assalaamu aleykum wa rahmatullah